<laughs> waaw xam nga korité ak tabaski yëpp a ci yem ñoom ñëppay wut xam nga nit ki ku ne ak li la ñor weer wi ñii koora leen ñor woori nañ jeex na ñii luñ sol lañ bëgg nañ leen ko jox waaye bu fekkee ne loo sol nga bëgg cheveux naturel wala nangam nangam loolu loolu loolu du ko daj jotewul a koor gi dara jotiwu la koor yi day rek la rek la jote nga mm-hmm. nopp ko mu jeex mm-hmm. waaye li gënoon nga ko sellal ko mm-hmm. ñaan ko sa far mu may la ko su ko amul nga bàyyi ko waaye ñaanoo ko far wi eh, sellaloo defoo dara da ngaa da forcé da nga koy forcé sama nangam jox ma ko sama nangam jox ma ko dul koor koor da ngay woor ngir yàlla bu jeexee nga jeexal ko ngir yàlla waaye laaj ay souvenir ba jaral la nga joxe sa bopp loolu dara jaru loolu dara jaru ko jigéen dafa noobul jigéen dafa noobul dafa noobul jekkul ci moom jëkkëram sax bu ko xamee daf war a jaaxal jëkkëram rek sa jëkkër rek bu la xamee war na laa jaaxal waxuma la ak nag koo xam ne du sa jëkkër fay la jox la déggoo waa jooju wax naan euh, ci charia ci ci charia mm-hmm. na nga amoo dara nga dem njaalu pour loo dundee am na ko wax loolu waaw waaw kooku day parce que gis nga am na masala yoo xam ne génne ko amul njëriñ ban njëriñ lay am na masala yoo xam ne génne ko amul njëriñ. ko teg mooy boo yorul ba waaye ma ne fii réew mi tollooguñ fa waaye te yay encouragé njaalookat yi ah waaye du mënoo bàyyi loolu day encouragé ñuy njaalo. dëgg la da leen di encouragé. Mhm. parce que ki daan def lu bon nga wax lool mu ne alhamdulilah waaye nag li ma neex yàlla ngi fi yàlla moom xam na lépp. yàlla xam na mën nga ko wala mënoo ko mhm. yàlla xam nga am na ko wala amoo ko mhm. moom xam na ko nit ñi dañoo bàyyi xel yàlla dañoo bàyyi xel yàlla gis nga yàlla boo ko bàyyi xel rek sa mbir doo ci dugal nit yàlla lay doon mhm. soo xel yàlla nag da ngay da ngay calculer nit ñi jaruñoo calculer nit ñi duñ dara duñ dara fi lu ñu dugg génn ci lu ñu dugg mën nañ cee génn waaye yow nit ñi nit ñi seen wax jarul toom lu ñu dugg mën nañ cee génn dañuy xas fi nit saaga fi ñëpp jëlandoo ci ci moom ñepp jëlando diko di ko xass di ko xas di ko wax lu baax moy lan non moy lan non amul jëriñ da ngay wax nit ki li nekk ci yow ti yalla tax waye yow dal ku la neex saaga diw dal wax na ben wax nañ partager saga ñi daggi saga ñi daggi saga ñi ngeen ba bam yag ngeen bàyyi ko dem ci keneen non dul aduna aduna da ngay da ngay nekk nit ku niti nekk nit ku niti moy aduna waaye àdduna doo nekk nit ko nitewul mhm. waaw kon yaakaar naa ni euh, oustaz fii baax na macha allah mu mel na que ñëpp laaj nañ luñ bëgg laaj te it wax fa dëgg yàlla boo amee kilifa des koy saganal oustaz macha allah di la masawaat coono bu baax a baax di la masawaat coono te lay ñaanal la baal xaq di la baalu xaq baax a baax di lay ñaanal oustaz li ngay di wax junni koor barki yonent bi sallallahu alayhi waaw euh, maa ngi leen di sant waaye ma sant kenn mhm. ma sant ñaar sax mhm. Mbay Jóob Sattaar mhm. ak soxnaam Aminta sama ñoom ajuma bi paase Mbay Jóob Sattaar dama ko daf ma woo mu yëkkati un million ne ma sa sa suukaru koor jox ma ko jabat yëkkati mbubb mi jox ma ko macha allah biñ ma ko joxee mënumaa wax nag maa ngi toog rek mm-hmm. mënumaa wax ak ñoom parce que damay liyaa rek mm-hmm. bi ma génnee ba dem mu ne kii lii daal wóorul kii kii ni mu mel am na fu mu toll ma départ ñu woo ba mm-hmm. ne ko na wàññeeku ñu yóbbu ko clinique parce que kii ni mu feebar daa feebar ñu yóbbu ma clinique fay ko def lépp ma dem fa ajuma samedi ma génn dem conférence hmm? waaw ñu xëccaan ma boo ñëw ñëw samedi fanaan fa dimanche ma dem Kaolack conférence parce que fekk na ma wax koo pare hmm. fekk na ma digge ak samay nawle hmm. ti dige bor la ti Maodo ne wafil ifaay ifaawn fa aw fu nee na matal kóllëre lépp a ngi ci ku matal kóllëre yàlla matalal la ma matal ma matal kóllëre euh, benn bi maa ngi ko defee Dakar benn bi ma defee ko euh, Kaolack bi ma ñëwee dimanche ma yegg si ay deux heures et quelque pare naa conférence ba ñëw ba ma ñëwee ma jubal clinique ba ñu ne ma yow da ngay font rek ñu monteel ma perfusion di ma ko monteel di ma ko monteel gis nga lii ma sawar a kas bon ci loolu laa ko jëlee ñu téye ma ba médecin bi ne sawa léegi mën naa dem waaye nag na na na wàññi ba ci kanam waaye mënoo wàññi kon kër Diop dama koy sant di sant jabaram di leen gërëm mbu mii jabar jee ma ko jox te fa ma nekkoon ñoo ko fay ñooma fu fa yóbbu ba mu ba mu ba muy clinique Madeleine clinique Madeleine la waaw ñu toppatoo ma bu baax nag ma ma docteur yi kenn amul jàmm ku ne ku ne ku ne ku ne ñëpp kenn amul jàmm Euh, bi ma paree ma jaar këram ne ah il faut ma gërëm ko nag hmm. ma dem këram mu ne ma Ibrahima li ngay def ci nit ñi di sonn ci nit ñi itam boo yow bu nit di sonn ci yow du ko du ko tey waaw ah. ma xam ni wax na dëgg hmm. waaye nag du ñëpp a ko xamee noonu du ñëpp a xamee noonu tiit man ba ma koy ba ma koy defal foogu ma ko woon sax waaw hmm. ah. donc kon nag ku la defal lu mel noonu danga koy sant kër jóob di sëñ Babacar Diop euh, sattaar dañ koy gër sattaar nag mooy sutura mooy lu yàlla muur wallaahi mooy lu yàlla muur moo tax ñu tuddee ko euh, société bi tudd sattaar mm-hmm. yàlla daf koy nëbb mm-hmm. saay-saay mm-hmm. mu defal ma sattaar boobu man nag ma wér ak ma bañ a wér wér naa sax wér naa parce que kàttan rek a ma dese waaye li ma defal kenn mësuma ko defal de ci àdduna kenn mësuma ko defal li ma mbay jóob dafa defal kenn mësuma ko defal mosuma koo def kenn mosuma koo def moom rek ma ko mos a defal moo tax maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm kenn mosuma koo defal du ndey du du kenn moom rek ma ko mos a dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay maa moom maa moom comme ñu bokk ndey ak baay te sàkkuwuma ko ñaanuma ko wuutuma ko xalaatuma ko sax xalaatuma ko woon mu defal ma loolu loolu na ko la ko defal war koo sant war koo gërëm parce que ñi ñuy defal tuuti ñu sant man bokkuma ci man ku ma defal ma sant la ku ma defal ma gërëm la parce que am naa li may defal kon boo ma defalee ma sant la gërëm la mais mbay jub ku baax la daan na yónnee ceeb ci daara ji daan na fa def lu ne ma defa waaye gii gii yoon baax na de wallaay ku baax ku la donc loolu nag laa doon bëgg a tëjee wax ne réew mi nag ñu demee xel demee sago rek demee xel demee sago demee xel demee sago dañ leen demee xel rek demee sago xel ak sago daal baax na waaye réel réel baaxul day tax nga dal ci dara rek hmm. waaw nañ demee xel sagoon hmm. asalaam